salaamaaleykum mm, man maa ngi tudd El Hadj Madabo wàdd nekk euh, honorable haut conseiller conseil économique social environnemental nekk membre euh, fondateur de la l'APR. waaw man dañ ma woo léegi man maa ngi woon dama tukki woon nekkoon ci yoon ñu woo ma ma écouter sama voyage ñu ne ma dafa am sunu benn militant di sunu jarbaat aussi di Ablaye mbay ñu ne ma day def grève de la fin fii. Euh, mu ngi ci buntu permanence bi mi ngi fi ñëw depuis le matin indi fi chaise am indi otoom gaareem nee fi lay toog dafay def grève de la faim pour président recevoir ko wala soxna président première dame recevoir ko lu mel nii nag doon na ko dëgmal doon na ko bëgg a def bi président di waaj a ñëw fii ñu woowoon ko waxtaan ak moom ni ko na teg loolu yëpp ci suuf ba mu tegoon ko ci suuf xam naa ni nag il reculer pour mieux sauter dañ dañoo dañ ñu ko woon bëgguñu dara parasité ñëwu président bi fii dañoo bëgg mu nekk une fête pour la ville de Thiès moom it mu dangu loon ñu ko may ñu loolu bàyyi ko teg ko ci suuf ba tey bi président ñëwee tey nag ñu woo ma ci suba fekk ma nekkoon voyage ñu woo gis ngeen yéen ma yéen a ma fi njëkk yéen ma fi njëkk egg si ma dagg sama voyage ñëw pour seet si ko ba ma ko seetsee it lam ma waxoon ca ba muy waaj bu njëkk ba ba wax ko mu bàyyi la ma waxaat deful grève de la faim pour rencontrer président pour wut xaalis rencontré wul président pour wut poste rencontré wul président pour wut benn am am loo xamante ni luy luy jóge ci koom-koom la wala yu mel noonu yuy wala ndomba tànk luy ñëw ci moom dafa am loo xamante ni da ko war a wax ak président mu jàpp ni njëriñu réew mi la loolu mu war a wax ak président mu jàpp ni su ko waxul dana mën na yàq lu bëree bëri te gis na ni kenn doy ko ci yóbbanteem moo tax mu ni moom da koo bëgg wax ak président baa mu wax kook soxnaam looloo waral muy day def grève de la faim Ablaye nag koo xam-xam ni nitu conviction la su ma jàppee maa ngi fàttaliku bi ñu jàppee Idr bi ñu fitee le président Idrissa Seck ne woon na suñ ko bàyyee dina dox marche doxe Fatick ba Dakar donc defoon na ko loolu yëpp moom ci ay action politique ci la nekk donc euh, mu ne loolu lay def ah ñu ñëw ba fii nag ñu ne ñu waxal nu dañ ko waxal. même su fekkee ni forme bi nun gis nun gis nañ ni lool la meilleure mais nag nit ku nekk aussi ak li nga jàpp ni mooy war a doxal sa lut noonu nga koy defee moom daal jàpp na ni soxlawul président pour wut xaalis soxlawul président pour wut poste soxlawul président pour wut dara waaye dafa bëgg a gisee président pour njëriñu réew mi loo xamante ni jàpp na ne suñ ko su ko ko waxul mbaa mu eggee ko soxna mën na yàq réew mi ëllëg ci lool looloo tax muy muy muy la faim pour. mais justement wax waaw est-ce que sàkku na ci yeneen forme gis président rek président chaque jour mu ngi recevoir ay tas de sénégalais gis nga bi may egsee léegi mu toog naa lu mat vingt minutes wala trente minutes fee ak moom di waxtaan ak moom te li ma doon wax ak moom yëpp it waxi bàyyil ak nanu seet beneen yoon waaye nee na ma depuis janvier deux mille euh, vingt deux mi ngi sàkku gis bi ci biir président di ko ci di ci dox. di ci wax pour gis ko munul fexe ba gis ko te nee na nag gis na ni amul beneen forme beneen yoon bu mu mën a jaar bu dul def grève de la faim fii ba nga xamante ni jàpp na ni su ko defee président dina ko déglu wala soxnaam la première dame dina ko déglu mu wax leen li mu bëgg a wax loolu daal moom moom moom mooy li tax première dame tamit. Hmm? moom moo ko soxal kay dem ci président. waaw parce que jàpp na ni xëy na xëy na moom li mu li mu du ma mënumaa wax lu dul leneen lu ëpp lu mu waxaal waaye xëy na jàpp na ni. yóbbante bi su ko waxee kooku xëy na dina egg su ko waxee première dame dina egg ci président waaye li ko gënal moom mooy mu jàkkaarloog président wax ko li mu bëgg a wax te li mu bëgg a wax comme du ñaan du may ma du joxal du defal ma du defal waaye luy defal réew mi la luy jëmal réew mi kanam la donc jàpp na ni loolu aussi am na njëriñ moo tax nag nun aussi ba ñëwee neewuñu ko par force diri ko bien que nag ko xelal waaye nag duñ ko diri nag du noonu dinañ ko bàyyi nag ak ay conviction mu doxal mel ne bind bataaxal président loolu mënul jaar foofu tamit. Oh, déggoo li ma wax moom nee na jàpp na ni def na lépp lu ñu war a def wax na ak ay kilifa pour ñu yóbbu ko wax na ak ay ministre bind na def na lu nekk at ak nangam ma koy topp ci pour loolu pour benn wax bëgg koo wax ak kilifa gi nga xamante ni jàpp nga ni tey moom mooy capitaine u gaaluk Sénégal bu gaal gi suuxee moom gaal gi kay li ngay njëkk def mooy ñaan capitaine ba am wér am am xarale am xam am am gis-gis ba mën a doxal gaal gi ba yóbbu ñu fa ñu bëgg donc capitaine boobu su fekkee ni xëy na am na yaa ngi gis luy yàq wala luy wax te mënoo koo wax ak kenn ku dul moom di nga fexe gis ko. loolu moom mooy. junj hmm? waaw loolu nag laaj naa ko ba sonn ma see wax moom daal li muy wax daal mooy bëgg naa gis président te am na lu mu ko war a wax. te intérêt réew mi la de que li li ma ko njëkk a wax mooy su dee da ngay wut dara looy looy lu ñuy wut la nañ jëm ci ministre nangam mu jox la mu ni soxlawuma xaalis soxlawuma poste soxlawuma mu may ma dara bu ma demee bu mu ma jox sax paas su bëggee su ma demee gis ko wala ma toog wax ak moom bu mu ma jox paas su bëggee bu mu bëggee na ma woo téléphone ma wax ak moom soxlawul paas kooku kon jàpp naa ni li muy wax lu conviction la lu mu gëm la lu nekk lu dëggu ci moom mu bëgg ko wax kilifa gi. lool lool xam nga déggoo li ma wax man man bi ma commencé ci sama commune damay wax ni ñun kenn mënul encourager nit ci grève de la faim mun jàpp nañ ni mën nañoo continuer di yoot di naxante ba xëy na am leneen waaye xam nga deretu xale bokkul ak deretu mag ñun mag mën na noo naxante mën nga muñ lu nekk waaye yëg-yëgam du sama yëg-yëg fa mu toll ci yëf yi ak la mu ci xam la mu ko bëgg a wax man xawuma ko wax dëgg yàlla yàlla xam na ni xawuma ko. jàpp nga daal moom ci njabootu président la bokk. ci njabootu kii nii ci njabootu président la bokk heure bu fi président di ñëw di ko gis. waxuma la loolu bu fi président ñëwul la muy liggéey ca suuf moo ëpp doole sax la mu muy liggéey bu fi président di ñëw doon na fi ànd ak Cheikh Kanté mi ngi ànd ak Ablaye Dieye mi ngi ànd ak docteur Ndiaye maanaam képp ku fi leader Ablaye loo woote dina la wuy si te dina la la nga xamante ni moo lay amal njëriñ te gën dégg ko ci ay bruit yu bëri donc euh, damay jàpp ni bu waxee ni xataraa yoon yi rek moom wax ak ñoo ñu wax naa ak ñoo ñëpp léegi moom président rek lay mën a waxal damay jàpp ni xëy na xataraa yi am na fu mu ko teg loo xamante ne xaw ma waaw xam nga moom déggoo man la toog naa fee trente minutes di wax ak moom trente minutes yooyu ci wax boobu moom bokk na ci loolu ma ne ko tee ngaa muñ ba suñuy dem ñun ñu yóbbaalee la wax mu ne su ma fa demee la may wax da ngeen koy dégg te bëgguma kenn xam li may wax bëgg naa mën a kilifa ga ñu xam confidentialité ba mu cay wut xëy na moom moo tax loolu waaye man nee naa ko na xaar ba ñuy dem su ñuy dem ñu yóbbaale ko dinaa mën naa koo ñaan loolu su ma ko ñaanee le ministre d'État Augustin Tine dinañu ko may su ma ko ñaanee ñi nga xamante ni ñoo yore yëf yooyu dinañ wala protocole dinañu ko may ñu yóbbaale ko waaye moom daal jàpp na ni confidentialité bi mu bëgg ci muy wax ak président su ko président woowee téléphone sax mu wax ko moom mu jeex na ci moom pare na ci du xaalis du dara lu mu donc mu ngi noonu